ساعة القرآن ونبي ما جادني بسايا ونفي أداني الله بالكتاب ومن أبي بلا إتاب رب الإله والنبي أحمد وسيلتي وإنه المحمد كرامتي يا كوني يا عبد الله أحمد سادر الإله صلى عليه وقف در الله جزاء منتقى خير الجزاء في كل ساعة وساعة جزاء بهت باللا إله إلا الله سرا ولا إله إلا الله هذا القزائد قلوب الجند لك وسالي عليه بمال المليك

عليك سلام الذي أبلغ عليك سلام التي أبتغي في كتاب من المدور وبيو في تتقرنان إذا كتبت إيد الأرس الباغي وذب الملائك التباغي على نبلاي سيف لاي سيدنا نور رسول الله الذي أبلاي أبلاي خائد الخلق لاي للإله سيدنا محمد والآل وزبي في الآلف والمال وجل بجاه المنتخى آياتا رعاية القرآن سلقات وجل بدال فوق كل ماي بركة كما تري السماء وجل كتابتي ككل مرسلي يا من وابتلي أجور رسلي fi ma jara bayni wa bayna man kawar xablu akuntari bi muxdirin nawar yàllaaw yaa ramaan yaa raynu yaa man bi majidin majidin xasmiya wajal bi jaay muntaxaat riayat alquran sil ayaati wajal bi jaay asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki taalib yi nga xam ne yéen a ngi jàkkaarloo ak ñun ñu ànd ak télévision Lamp Fall di télé bi jox léppam Xaadimu Rasuul ànd ak Istiqaama TV di télé bu sax ci ak njub ànd ak académie Minan ku ko xam miin ko ci wetu Serigne Mountakha Mbacke Basir mi fi nekk Serigne Touba Xaadimu Rasuul mbokki ñetti télé yooyu ñooy ñëw fekk Serigne Sidi Mbacke moom Serigne Abdoul Khadir Mbacke ci ndigalul ay kilifaam doore ko Serigne Cheikh Mbacke mi nga xam ne mooy jëriñ ko Serigne Abdoul Khadir ak mboole ñu bokk Serigne Abdoul Khadir ñu fas day bàyyi ko ci moom jëm ci mboolem mbokki jullit yi rawat na mbokki taalibe yi alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baadahu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ku nekk kenn ku nekk ci turam ak santam di leen nuyu ci turu Serigne Cheikh Mbacke mi nga xam ne mooy jëwriñu kër gi yàlla ko yàlla yàggal dolli ay wéram yàggaleel ko ay yéenam yëpp ak mboolem ay rakkam tan ànd ko moom mu ngi leen nuyu ci turu sëriñ Muntaxa mi nga xam ne mooy borom kër gi di alxalifatu am di taifatu muridin ataala allahu baqaahu wa atamma muraadahu ñu am mbégte bu baax a baax bis bi nga xam ne moom la nekk bi bisub Cheikh Abdoul Khadir Mbacké di fàttaliku gan ak Cheikh Abdoul Khadir Mbacké radiyallahu taala anhu bis mu gane woon adduna fii ci daaru alimul xabir te wax wax jooju nga xam ne siiw na du jàll ñu koy baamu ñu bis bu tedd bis bu màgg di bis bu xeewal di bis bu yiw bisu njëgal ñu di ko màggal am jot ci ndigul Seex Saaliw Mbàkke moo joxoon ndigal li ñu koy def ba tey ji nekk ci ndigal kéemteefu Sëriñ Muntaxa Mbàkke ñu ko baaxoo defee itam bu jublu see ñaan dem mag Sëriñ Cheikh dem la yeesal la boo gisee noonu ko wax ñu de ñu màggale ko nii buñ ci buñ ko waxee itam daanañu nañ ko def nañ ko màggale woon daaw rek ndax jamono ji ak xat yi nga xam ne moo nekk ci àdduna moo tax ren nan ko daa doxale wàññi ko na ci waaj waajtaay yaag jëf ya waaye teewul nag murid yi moom xër gi xër ci sëriñ Abdou Khadre xër gi xër sëriñ Touba teewul nag murid yëpp wusi nañ dem ba tey kër gi da fees fees dell ñëpp a ngi siyaare waa dema demee fa sëñ bi nag fi mu nekk xaj kenn xaju fa loolu nag pas-pasu nit ñi ak seen taay ak seen gëm sëriñ Tuubaa moo tax dara mënut a dox seen diggante loola donte ñëpp xam na ne feebar bi am na waaye ñu ngi ciy ñu ngi koy maye man lépp nag waaye téewé nag ñoo xam ne yàlla yàlla nag mooy dogal moom képp moo tax mooy tax nit mucc mooy tax lay jot nag ma asaabaka min hasanatin famin Allah wa maa asaabakum min sayyi'atin famin nafsihi ñu xam ne lii xew mu ñoo ko teg suñu bopp rek kon nag delluwaat lii nga xam ne mooy sëriñ bi def démb wax taalibe yëpp ñu delluwaat seen bopp ci yàlla delluwaat seen bopp ci taalibe jàng xasida arfaan li nga xam ne mooy nday xasida yi jàng xasida yi yendoo ko def ba ngoon ñaante gëm nañ ne bu ñu feesoo lii daan yëg ne li taxoon sëñ bi wax lee ko waral waaw jàpp nañ ne feeru dana dellu ginnaaw wér ay loraame tamit dana wàññeeku bu wër nawet bii nga xam ne moom tamit ñu ngi ci tiit bi ak ba tey jàpp gëm nañ ne bu ñu weesoo yëpp suñ suñu borom danañ defal tawfeex ba ba liñ ci doon séntu ñu bañ cee egg kon nag na mu wax daal tey yëpp rek seen xel dal bu baax seen di gën a sedd bu baax yi gën ci sëriñ bu baax bañ ko boole dara cee gëm yàlla xam ne lii yàlla moo fu indi yàlla rek moo ko fi mën a jëriñ nag ndax experts yi nga xam ne ñoo gën a xam santé ñëpp xam nañ ne feer mu xamaguñ ko xamaguñ lu koy joxe xamaguñ lu koy xet moytu moytu daal lan lan wax ne moo ci gën a wóor wax nag nañ koy def te moytu ñun tam nag dara gën see wóor tam ñuy ñaan suñu borom la nañ tuub tuubaat bu baax delloo delloo suñu bopp ci yàlla bàyyante yàq suñu diggante ndax suñ yaa ngi tooñ sa borom ku yaa ngi wax sa borom loo wër sa di ñaaw jot sa morom di jëf sa morom lu ñaaw yooyu nag mën naa indi nit ñi kon nag buñ tuubaatee ni ko gaa yu baax yaa diggee bàyyante ak yox suñu diggante te sàkk sarax fonk sàkk sarax yooyu mën naa génne xat-xat yu ab jullit nekk tey ñaan yàlla nag dañuy sëñ bi dégle woon démb waxtu ngoog julli julli moom noonu la fonkoon waxtu léppam julli la waaye nag wax fonk waxtu bu la lu muy def itam nag amal na ko waxtu dafa programme woon ay bi muy jàng alxuraan mhm. du fanse mukk ci àdduna ay bi muy jàng xasida noonu heure mhm. bi muy gën dem ci mbooloo mi noonu heure mhm. bi muy noppal noonu heure bi muy liir noonu loolu am na heure boo xam ne yow boo ko xamee fu foo nekk ba nga xam ne boo nee fekk muy <laughs> ak heure bi muy gis ak njabootam lépp doo ko séddale kon nag loolu nga wax fonk waxtu moom ci moom la fonk ak fonk doomu aadama ak am njërmane xew-xew yu masa am da ci da ci bari ay ci ñaan maa wax bëkk de ba sëñ bi tàngoor tàngooru jamono rek daana ci ñaan suñu borom tàngooru jamono yi nga xëy mu ne biig li damaa doon ñaan suñu borom ci tàngoor yi ndax daa métti wala sedd bi métti yooyu yëpp la ñaan borom ndax xam dëgg sax nag ndax jur ñun sax boobay gane na ndax sëñ bi daal ma bëgg lu muy ñaan waaye ñaan ci tàngoor ñaan sedd waaye waaye dëgg naa suñu borom moo moo digal ñaan <laughs> mooy adduhaaw siraaxul mu'min <laughs> wala moqul xibaada jaamu yàlla ñaana ci gën a wóor kon nag nañ nan nan nan tuuba del delloo suñu bopp yàlla balante àq tey sarxe tey ñaan nag suñu borom tàqale la ñii parce que suñu borom rek moo nañu mën mën a tàqale ak moom <laughs> feebar bi moom damay na xam mooy yow la def da da ngay dóor sa bam ba sonn ca doo xam fu mu ne waaye feebar bi moom daf ni ngi tëye sa xel rek doo sori dara kenn xamul kenn xamul lu leer ne moo la koy jox kenn xamul lu leer ne moo lay faj kon nag nan def li ñu def tey digal nag can nag ñu delluwaat suñu borom tuub sakk sarax jàmm yàlla cee ñaan yàlla mu tàqale ko ñu ndax ku ne xam na ne mbooloo mi dajee fan yii demoon ci réew bi wan leen ni ñii mas maa ci ñoom danaa ñi ay dof la <laughs> te ñu fi nekkoon dara du leen jot bu soobee la dara du leen ci fekk ni màggal tubaab meloon nga xam ne day yàlla dara du xew noonu la ñuy mel ndax ndigal leen ko defee waaw dara du fekk kon nag nan nan fexe ba ci ndigal rek mm. ñu ngi ñu ngi mooy gànnaayu jullit mooy gànnaayu am murit moom bu topp bu toppee ndigal dafa wàcc dara du ko fekk waaw nga dara du ko fekk te lu mu def ndax ka ko digal moom xam na lu tax mu digal ko te mooy te mooy mag ol bi itam nag kon a kon nag suñu xel dal bu baax ñu ñaan bu baax sëñ Mountakha yàlla yàggal ko fi lool dolli ko wér lool mi ngi dalal xaw jullit yëpp waaye mi ngi dalal yëpp di daal xaw njaboot sëñ Tuubaa ñu ngi leen di gërëm nag yéen bu baax a baax di gërëm lamp bu baax a baax nag ndax bi maa ngi julli see gis nañ ay plateau yu ñu yoo xam ne wax dëgg yàlla sakkuñ ko ñoom sax ñoom ñoo ko defal seen bopp sun sun appel yi ñu doon defee ñu koy jàllale kan nañ ko bëggee loolu lépp ñu koy gis ngeen dëkk ñëwaat ànd bokkat ak ñun bi loolu rëy na ñun bu baax a baax ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi sant béy bi di ko sàkk mu jàllale ko ci kilifa gu mag itam ndax suñu wëlëree la Aliou suñu xale suñu suñu soppe la sant santal ñu ko baax a baax santal ñu béy bi gaa yi fa nekk yëpp Abdou Khadir rek ak kii Guèye ñoom ñëpp Ibrahima Guèye ñoom ñëpp waaw ñu ngi leen sant bu baax gis nañ seen taxawaay sant presse bépp nag maanaam presse jàpp nañ ci bu baax a baax contexte bi nekk mm, tax na ñun nan daa duggee presse defu ko waaye teew ñu sàll ñu ci ne lan leen war ñoo xoolal seen bopp defal ko seen bopp ngir ngir ngir cofeel gi am cofeel ci seen bu xaadir ak ngeen ak ngeen am ci réew mi kon nag ñi dañ ci gërëm baax ci ñaan fu ngeen bëgg egg rek seen presse yàlla egg ko barke sëñ Tuubaa jërë ngeen def ñu ngi sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah رئاية القرآن سل آياتي وجل كتابتي من سل يومي فوق صلاة قبلت وسومي واقسم بقتل ما ارتوى من القلوب أنت الخبير والكبير والمريم والدنيا بك وبالمسفي عن كل سال وكل مدفي وجبت بيمين تمسدي وبرني سي وقلبي أرسلي سل سلاما كل فاسد تصوح li gayri saabil yatudi muribu suux bilaa xurooji maa salamin faayiqa li yajuulu abadan bilaa yiqaaw على الذي ساتلي تويدا لك وبرسولك الويدا سيدنا محمد والآل وزبي في الآل والآل يا جائل الخطيئة فوق السنين وذن خير يا أذيم المني وابتلي سلام آفاق المراد بلا افتئات وجلوت للمراد كما الغادي والمقتدر معصوم من الأنعاء الخضر مفعل خير جيت ما ساء كافٍ كواني كل ما أساء فردت خير الخلق تفريا يدوم إني لأوخل ويبر وخديم يسر لي خدير ما تأثر على سوى لي ودا فسر كرمني الكريم والمكرم وخاذ لي بشكري المكرم ووتي مساج لي nga xamne mom la indi fi ci kër gi da ko yàgg yéene sëriñ bi sàkk ko ci sëriñ bi sëriñ bi dimbali ko ci mu du ko jëfee sëriñ bi di ko ci dimbali bu baax nag xam ngeen maanaam euh, yaramam waaye su fekkoon ne mën na ko ni mu ko daan defee la koy defee day toog ci barab bi ànd ak teen ñun bu ñu ñëw sax su ma ne ñëw ñëw waaye nee na bu yebalee ñi nga xam ne ñooy njabootam ñu ànd ak njaboot ak euh, rakkam ñi ñuy wax maam Sayer mu féete fële ca ñu indi seen i seen liggéey boole ko suñu liggéey ñoom Serigne Cheikh a ngi fi ak sëñ Ibra ak njaboot gi yëpp ñëw nañu sëñ Baara nee na kon mu ngi ñaan yàlla suñu borom. ñu yàgg la fee fekk yàgg fekk Serigne Cheikh ak njaboot gi yëpp rek te yàgg ko ànd ak njaboot gii nee na yëg na ci nag waxub Serigne Abdoul Khadr bu baax parce que la leen daan wax rek moom lay yeesal ndax ay jamono da leen daan wax ne dafa njaboote ay mag yoo xam ne xëy na seen xam-xam bariwut ak gone yoo xam ne dañuy doog a judd seen xel yaatoogut waaye mu sakkoon sëñ Abdoul Khadr man ñooñu suñu borom dëgëral leen te defar seeni xel gone yi ci des suñu borom te dëgëral leen te yar leen def leen magi diine te jox leen wërsëgu ñu liggéey sëñ Abdou Khadre nee na nu ko ñaane woon sëriñ bi nag xam na ne sëriñ bi jàppale na ko ci bu baax a baax liñ ci boole ñi nga xam ne taalib yi nga xam ne yàgg nañ fa ñëw ndax daf naa ne miin nga mel nan la Mbakke ànd ko njaboot gii ñun de ngi sant suñu borom ba nga xam ne moo ñu booleeg sëriñ Cheikh Baara mu nàmmatal ñu ci liggéeyal sëriñ Abdou Khadre te na ma ko daan waxee mooy moom sëriñ bi de du ñu du ñu woo ci ay yittey boppam mukk ci liggéey suñu Abdou Khadre rek la ñuy woo kon loolu ndimbalal suñu borom la loo xam ne ñun taalibe yëpp ñoo bool ñoo booloo kàddu yooyu ñu jël ko jëmale ko ci sëriñ Seex sakku ci yéen ngeen dolli ko ay ñaan suñu borom gën ko dëgëral mu yàgg suñu te yàgg bi na ànd na ko ànd ak gii rek suñu kàddu nag lottu na ci ndax xam naa ne da di kàddu yi euh, ndigal li jóg moo tax ñu ko ci yëkkati bu ko sëriñ mënoon a waxal boppam wala mu yebal ko njaboot gi nga xam ne ni doy na wuñ nit duñ ko wax loo dañuy nekk ca ginnaaw fële ca taal yi ñoom ñoo ko seen bopp waaye dañuy kaddu sëriñ bi moo tax ñu ñu ñu ñu la ko yëkkati kon Mbàkke ñaan yàlla fekke ndal lu fi déwén te bu déwénee lii nu indi fi de nu euh, indi nu nu ko lu ko lu ko te mu ànd ak gërëm ak barke te sëriñ bi ànd ko ñun wasalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bi neen asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu. sëriñ bi nee na yéen mbokki taalibe yi mi ngi leen di nuyu. ci turu Serigne Cheikh Mbacke mi nga xam ne mooy jëwriñu Cheikh Abdou Khadir Mbacke. ci turu Serigne Cheikh Mbacke mi nga xam ne mooy jëwriñu ko Serigne Abdou Khadir Mbacke. radiyallahu taala anhu. radiyallahu anhu taala. yal ko yàlla dolli wér. yal na ko yàlla dolli wér. eggaleel ko ay yéenam yëpp. eggaleel ko ay yëpp. te nu ànd koog moom te nu ànd moom. ñu ngi di delloo ab nuyoo. jëme ko ci sëriñ Cheikh Baara. di ko jëlee ci sëriñ Cheikh Baara. ak mboolem ay taalibeem. mboolem ay taalibeem. ak i rakkam. ak i rakkam. ak i bokkam. ak i bokkam. sëriñ bi mi ngi koy nuyu bu baax. sëriñ bi nee na mi ngi koy nuyu bu baax. di ko sant bu baax. di ko sant tamit bu baax. ci jëf ju rëy ji nga xam ne mi ngi koy jëf. di jëf ju rëy ji nga xam mi ngi koy jëf. jamono ju ne. jamono at mu ne. at mu ne. bu bisub sëñ Abdou Khadre bi bu dëkkee. bisub sëñ Abdou Khadre bi bu dëkkee. mu defee ko nii. mu defee ko nii. ren. ku ne xam na ne contexte bi ñu nekk. léegi kenn ku ne xam ne. jamono jamono ji ñu nekk jamono ji ñu nekk. waaw xat-xat yi ñu nekk. xat nekk. tax tax. bis bi yeex nañ ko waajal. bis bi yeex nañ ko waajal. ngir doon dig laaj ndigalu sëriñ bi. doon doon xaar diglu ndigalu sëriñ bi. waaye teewut. waaye teewut. li ñu koy yeex a yeex waajal. li ñu yeex a yeex a waajal. ak li ñuy yeex a yeex a jox ndigal. ak li ñuy yeex jot ndigal. gis ngeen ni mu jëfee. nee na gis ngeen ni mu jëfee. nam daa doxee. nam daan doxee. dara soppeeku si dara soppeeku loolu nag. loolu nag kon nag. loolu nag. loolu nag. Pastef la. Pastef la. ak kub cofeel. ak kub cofeel. ak kub dëggu. ak kub dëggu. moo tax mu def moo def ko nii. mais moo tax mu defee ko nii. kon nag sëñ bi nee na mi ngi koy sant bu baax. nee na sëriñ bi nee na kon mi ngi ko sant bu baax. di sant ñi nga xam ne ñoo ko jàppale. ci liggéey bi di sant di sant mboolem ñëpp ñi nga xam ne ñoo ko jàppale. ndax ku ne xam na ne. kenn ku ne xam na ne. fee mu nekk moom. fee mu nekk moom. jugeetu fa. jugeetu fa. waaye nag. waaye nag. ndaw yi nga xam ne ñu ngi koy dox ndaw yi nga xam ne ñu ngi koy dox ñu ngi koy doxal ñu ngi koy doxal ci ay taalibeem ay taalibeem ak i wëllëreem ak i wëllëreem ñoom ñu ngi leen sant nee ñu ngi leen sant bu baax a baax ndax buñ defutoon lan war a def nee buñ defutoon li nga war a def liggéey bi du mel nii liggéey bi du mel nii kon nag buñ santee sëriñ bi nee na waaye nag buñ santee sëriñ bi mi ngi sant nag ndawam yooyu nee na mi ngi sant nag ndawam yooyu tamit tey ñaan yàlla tey ñaan yàlla yàlla doole ko wéram yàlla doole ko wér doole ko kattanam doole ko kattan ba ni mu ko daa taxawal boppam xam ni mu ko daan taxawal boppam mu di ko defee noonu mu ko defee noonu. ndax ku ne xam na ne. kenn ku ne xam na ni. fonk gi mu fonk bis bi. fonk gi mu fonk bis bi. tax na tax na. Moussa jublu si. mu naan jublu si moo daan jugal boppam. moo daan jugal boppam. seetal boppam taalibe yi. seetal boppam taalibe yi. loolu la ñu ngi koy ñaanal ci barke Sëñ Abdou Khadir. leen ñu ngi koy ñaanal ci barke Sëñ Abdou Khadir. sëriñam boobee. sëriñam boobee. yëpp xaritam. yëpp xaritam. te xam naa ci dara. te xam na ne xam na ci dara. moom it xam na ci xam na ne xam naa ci dara. moom tamit xam na ne xam na ne xam naa ci dara. kon nag kon nag ñu ngi koy ñaanal ci ci barke kilifa googee neen mi ngi koy ñaanal ci barke kilifa googee yàlla delloo waat ko ci sagom yàlla dafa ko delloo ko sagom ak kattanam ak kattanam ba mu koy doxee ni mu ko daan doxee man doxee ko ni mu ko daan doxee ñu ngi leen di sant bu baax nee na mi ngi leen di sant bu baax xolub sëriñ bi sedd na xoolee xolub sëriñ bi sedd na sunu xol sedd na xolum sedd na xolub sëriñ bi xaari sedd na xolub sëriñ bi xaari sedd na barab bi ñu teew di ko def nee na barab bi ñu taxaw di ko def doy na ci tegtal doy na ci tegtal tax bi ngeen di seen jàkkaarloo moom tax bi nga xam ne moom lañ jàkkaarloo ci la sëriñ bi wàcce liggéey. ci la sëriñ bi wàcce woon liggéey. loolu nag. loolu nag. tawfeex la tawfeex la. alhamdulilah kuy jëf dara. kuy jëf dara. da ngay jëf. da ngay jëf. ñu seede ko ci borom tawax bii. ñu seede ko ci borom tawax bii. te liggéey bu masa li bu masa dugg fii. liggéey bu masa am dugg fii. sëñ bi xaar masa dugg fii. masa am dugg fii. ñu ne dem na ci liggéey ba. ñu dem na ci liggéey ba. fii ju julli. fii julli. jàng alxuraan. jàng alxuraan. jàng xasida. jàng xasida. julli yoo yor. julli yoo yor. ba ba liir. ba liir. moo ko daan dugal fii moo ko daan dugal fii. kon nag kon nag barab bii nekk kon barab bii nu nekk barab bu tedd la barab bu tedd la ande dëkk man de kër gi moom moo fi gënal nee na moom dana ne kër kër gi moo fi gënal kon nag kon nag am ngeen tawfeex nag am ngeen tawfeex bi seen liggéey taxawoo fii bi seen liggéey taxawoo fii nee na sëriñ bi na xolam na xelam dal bu baax nee na da ngeen xam ne sëriñ bi ne ko na xelam dal bu baax loolee ko sëñ bi waxoon loolee ko sëñ bi waxoon na koy xool rek na koy xool rek waaw waaw yàlla na ko yàlla dimbali yàlla na ko yàlla dimbali lii mu koy gën a man bu baax lii mu koy gën a man bu baax ndax bis la boo xam ne moom na bis la boo xam ne lu ci waay def lu ci waay def da nga koy gën di man rek da nga koy gën a man ak ngir borom bis bi ngir borom bis bi yërmande borom bis bi yërmande borom bis bi ak ak ak bëggum lu baax. ak bëggum lu baax. ak bëggum ndimbal. ak bëggum ndimbal. lu lu ko lu ko waay defal rek. lu ko waay defal rek. sunu borom dana ci fay sunu borom dana ci fay. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. sant nañ bu baax nee na sant nañ bu baax. yàlla na ko teewaat na ngeen déwén yàlla na ko teewaat na ngeen déwén. te kenn si ñun bañ a manqué. te kenn si ñun bañ a manqué. te lii nga xam ne mi ngi ne lëng si àdduna si. lii nga xam ne mooy lëng si àdduna si. la la jël ñëpp. la jël ñëpp. te kenn gisu ko. te kenn gisu ko. Hmm. du ko dégg rek. du ko dégg rek. tam ya tam tam gàllankoor ñëpp. tam gàllankoor ñëpp. kenn kum gàllankoor amut. kenn kum gàllankoor amut. loolu nag loolu nag nan ko ñaan nan ko ñaan ci barke bis bi ñu jógee démb barke bis bi ñu jógee démb ak bis bi ñu nekk tey ak bis tey bii bu jàllee bu jàllee ñu tàqale ko moom ñu tàqale ko moom ndax moom ndax moom ñaan rek moo ñu tàqale moom ñaan rek moo ñu tàqale moom suñu pexe pexe yéen xamoon yëpp pexe yéen xamoon yëpp def nañ ko def nañ ko te mi mi mi ngi mi ngi taxaw ba tey rek mi ngi taxaw ba tey rek te ñi ngi xalaat na dana judduwaat tam nee ñi ngi xalaat na judduwaat kon nag nan ñaan nan ko nag nan ñaan abdoha wa siraul mumin ab jullit moom nee ab jullit moom ngannaayam ngannaayam mooy ñaan mooy ñaan nañ ci delluwaat nañ ci delluwaat mooy li sëñ bi doon def démb rek mooy li sëñ bi doon def démb rek dajale murid yëpp dajale murid yëpp ñu ñaan ñu ñaan ngir yàlla tàqali tàqali ko lii tàqali ñoo lii ngir yàlla tàqali ko lii nawet bi suñu kanam itam nawet bi suñu kanam yàlla def ko ci anam gën a rafet yàlla def ko ñu anam gën a rafet kon nan ko fas ci bés bi nan ko fas ci bés bi fas ci bésu tey bi itam te fas ci bésu tey bi tamit te gëm naa ne te gëm na ni buñ ko ci buñ ci amee pas buñ ci amee pas buñ jàllee buñ jàllee daan xam ne daan xam ni bis yi jàll na bis yi jàll na am na feeñ dana feeñ ci réew mi dana feeñ ci réew mi jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah fooy tal na taalal taal leen leen taal leen leen amin amin ya rabbal alamin amin bakki amin bakki amin ak seen xam bakki amin la fi yàgg a fekk amin la fi yàgg a fekk